tey mu fukki at ak ñett nekkoon bés bu sëriñ Saalum Mbàkke radiyallaahu taala anhu génnoon àdduna ñu koy jooy ba léegi noppeeguñu te dañ la laaj di mu jooy noonu lan nga ñu mën a wax ci ah sama sëriñ maa lay jaajëfal di la jox sa wàccuwaay jëmm jooju day jëmm joo xamante ni ku naqaree waxtaanal la ndax xool yi day tooy sëriñ Tuubaa xam ne tey suba rek ba may duru samay xasida maa ngi koy fasaale waaye daanaka eggali wu ma ndax ay xéwal yu ma doon tuur jëmm jooju dafa dafa dafa dimbali jaami daal mhm. wax dafa maa jafe lool waaye dinaa jéem a wax lu tuuti li ma xam ci moom man de wër na sëriñ Touba mhm. judduma si yoon bi waaye mun naa ne sëriñ Sall damaa dimbali mhm. ndax ki ne murit bi ma jaaxal mooy kii musta teg tàngam xelkom ko moo ko jaaxal waaye nee na xelkom képp koo xamante ne am nga fa aw ngont rek saw ñax tàbbi fa rek seeram araamal na safara ana ñi mu dimbali ana ñi mu bind seen digg ana ana ñi mu jox ñu naan ana ñi nga xamante ni da leen dimbali multimilliardaires yi ngay dégg ñi nga xamante ni da sol xam-xam mu sol leen alxuraan ci mu jooju faal du lu ñuy amaat. booy wër koo xam ne dafa dëddu àdduna wëral Serigne Saliou Mbacke ndax dëddu woon na àdduna nekk koo xamante ni dara ñuru lu ko waroon ñuru ñuru ko woon. loolu la fa waajuram bi bàyyi woon xaadimu rasul mi nga xamante ni mooy jëwriñu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy bay ak jàng ak jàngale ak fexe nit ñi mu baax rôle boobu mu nekk woon tamit mun la ko doon tënkal dama naan la rôle la boo xamante ni rôle la boo xamante ni tey moom la yonent yi nekk woon ndax yonent yi liñ fi nekk woon ñaari baat rek la wa yaamuru bil maarufi wa yanhawna anil munkari digle lu baax tere lu bon te Serigne Saalihu Mbàkke tamit ci loolu la nekkoon ndax xoolee tey ci li mu taxawal ci réew mi ci wàllu mbay taxawal ko ci wàllu daara loolu ci kenn nit koo xam ne du entreprise du société du dara moom képp jëmmam ji ak ndimbalum yàlla taxawal ko ci loolu moo taxaw te du entreprise loolu ndimbalum yàlla la te li ko ko may nag mooy dafa ànd ak yàlla ba pare nag ñu fàggul ko ko mooy jëwrinam jëwrineem ja sëriñam ba waajuram ba muy xaadimu rasul mi nga xam mooy jëwrinu sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wallaay xanaa ñu koy jooy rek te noppeeguñu muy nitu diine muy nitu lislaam mooy koo xam ne daan na ñaax ñu daan nañu ñaax lu bari ci diine ji parce que man maa ngi ba léegi bu fekkee maa ngi koy seetaan dina am lu bari loo xam ne dina ko def ci man ci diine mu nekkoon ku sopplu mu nekkoon ku baax mu nekkoon koo xam ne macha allah doo doo mës a gis ay bëtam jaxaran ndax ci sellam ak yiiwam ak ak diine ji mu am wax dëgg neex yàlla ñun moom dañoo nekk ay ndaw yoo xam ne moom diine rek moo ñu soxal diine rek moo ñu ñor képp ku ñu gis koo xam ne mën nga ñu dimbali ci suñu wàllu diine duñ la fàtte abadan daay man dappat kon sëñ Saliou nekk na nit koo xam ne moom kenn du ko fàtte. jëmm jooju moom loo ci wax lu nekk rek am na loo bàyyi ndax sëriñ Saliou kenn mënut a xam léppam li sëñ Tuubaa doon wax naan kenn mënu maa xam waaye moom kenn mënu koo xam eh, maanaam lim def ci man dafa dafa dafa yaatu ba nga xam ne mënumaa toog sax di ko lim ndax mën naa ne bi may tuut tànk. dañ maa dugaloon école may jàng waaye teewu dama daan bàyyi école bi di daaw di dem daa yi sëñ Saliou biir kër sëñ Saliou laa daan tëdd di nelaw ci biir dongo yi ba dongo yu mag yi di ma génnee naan ma booyu Mbàkke bi ñëw na boobu Mbàkke laa dëkk mais Touba laay dem kon yaakaar naa sëriñ Saliou ni ma ko bëggee moom ah sama bopp laa xam bokk wax dëgg yàlla am fees na ci sama xol lool sax tey defal na ma ay mbóot yu bëree bëree bëri mënu maa doon ko lim barki sëriñ Saliou su ma taxee wax tuuti rek su ma taxee di wax sëriñ Saliou sama xol day tooy na benn bis ndeysaan ma dem ci barabam di fa ñaan comme damay liggéey ci wàllu oto barke Serigne Saliou du caaxaan damaa ñaan ci dogu ne ko lii laa bëgg maanaam fi ma toog la sama téléphone sonné ñu ne ma diw yow lay xaar ndax la ma doon ñaan barke Serigne Saliou barke Serigne Saliou du caaxaan kooku bu may wax ci moom yaakaar naa. man bind naa lettre barke xaadimul xadim mooy na ma ko waxee woon rek sëñ Touba toog ci wetu jumaa ji boobu sëñ Saliou moo nekk ci njal bi waaw barke alxuraan ma ne ah ma ne dama bëgg bu ma mën a liggéeyee pour sama njaboot bu waa ji bindal ma lettre ma téye lettre bi mënumaa gis sëñ Saliou ba ma demee sama kër barke xaadimul xaadim nun faa gaareel oto barke sëriñ Saliou billaahi wal kitaabi ba léegi ñàkkuma ko parce que sëñ Touba moo ne ko woon yow yaay sama doom waaw kon moom fa muy gise ñun fa duñ fa gisee kon lu mu wax rek noonu la barke sëñ Touba ne waaw sëñ sëñ rek sëñ Saliou rek sëriñ Saliou nag ku ñu nekk da ngay xuus ba fa mën a yem rek ngay yem fa waaye kenn du ne maa xam Serigne Saliou wala kenn du la ne maa lay wax kuy Serigne Saliou kooku moom kii na tey defe naa ne am na bés sëñ Issa Diène toog ak sang bi ak sëñ Touba sëñ ko Issa xanaa xamoo ne kii saa dooma coro ba mu koy wax sëñ Saliou taxoon mu di ko wax sama maam bu ñuy wax alaaj si sa dëkk cee na ba seek nee na ma ànd naak ñaari nit ñu ànd ak moom di siyaare Serigne Saliou ba ñu ñëwee ba jub sëñ bi mu ne leen dànd leen ko tuuti sëñ bi jiitu ñu topp ko di sëñ Saliou doxee dox bi xaw a teey xaw a tegginu benn avocat bi ne sama maam xanaa tànk day métti sama maam moom ci ci ci mag ak ak ak yàlla may ne ko tànk yi méttiwul de waaye suuf suñuy dëgg la yërëm te sëñ bi xawoon na ak ñoom distance sorante nañ ñu dugg ci néeg bi toogee sëñ Saliou ne leen suuf si day ku koy yërëmul soo duggee ci bàmmeel di nga bëgg mu yërëm rek rek laaj ñu loolu xëm nee na li ko li ko jommal mooy nu sëñ bi mu ne tontu laaj bu mu déggul waaw kon Serigne Saliou dañuy ibbee ci moom loolu rek ba ba cor ngeen ñu laaj li leen waaye kooku daal mooy Serigne Saliou koo xam ne àdduna bëggoon na ko ñëpp safawoon nañ ko moomoon lu dul jeex ci teraanga xam-xam te mës a tëkk dàngam Ndakaaru bu am na ko weddi li ma wax it na ñëw weddil ma lii waaye ci lim am yëpp ak li ñu dégg turam yëpp sëñ Saliou musul ñëw Ndakaaru ah sëñ Saliou de géej la goo xam ne koy wax ci moom xam naa du du mat waaw xanaa ñu am luñ ci sànni rek ndax comme ay taalibe lañu yoo xam ne sëñ Touba lañu yaakaar te ëllëg waaw buñ ñu laajee ci sëñ Saliou lu ñu xamadi xamadi ku ne xam na sëñ Saliou li mu fi def waaw ndax ci ab gàttal moo ne woon jox leen ma ndaw yi ma def ci ñoom li sëñ Touba mu tedd mi def ci mag bi waaw ci ak gàttal xam nañ ci moom yërmandeku yaatu goo xam ne amul fu mu yem. jóge ci daara sëñ Saliou rek boo ko gisee rek xàmmee ko waaw ndax defar na leen am na lu mu def ci ñoom waaw ñu di ci sant bu baax suñu borom waaw. waaw ñu gis tamit ah, xel kom jaaga bu ko musee waaw bu ko wootee bu mu demee bu mu doddoo àdduna yàgg na loolu mais bu ko wootee dañuy gis ñëpp màbbeeku dem ci ci toolu Xelkom jooju. waaw loolu mooy liggéeyu ku baax du dañ mukk man xel koom googu nga yox mos naa faa dem waaw ba fa demee togg sax def naa ko fa keroog mbana laa engagé togg ko waaw mu nekk Xelkom nekk lu yéeme loo xam ne ni ñuy waxee naan murit bu ne war ngaa fexee dem Xelkom waaw ndax Xelkom kenn mënul wax lu fa nekk lu dul da nga faa waaw waaw muy lu yéeme waaw waaw ñun nag ñu di ci sant yàlla bu baax comme yàlla dogal nañu teew fa waaw ndax sëñ Saliou la mu def ca xel Xelkom la mu def ca Touba la mu def ca Mbuur Njaarim àdduna daal àdduna yëpp laay wax sëñ Aliou lu mu def ci àdduna waaw ndax moom moo nekkoon leeru sëñ Touba mu tedd mi bu mujj ci jamono kon nga xam ne kooku il faut mu am lu mu bàyyi ci àdduna waaw yaay bu ñu leen di di kàddu yi rafet na macha allah. waaw ñu sant bu baax ñu sant bu baax waaw. waa macha allah laaj ngeen ma lu ma kontaan ndax nag nitu diine la woon macha allah waaye ci sëñ Touba laa jóge rek loolu doy na vraiment référence mu doomu sëñ Touba te sëñ Touba sax danaan faral di wax na awma doom ay taalibe laa am kon moom yaakaar naa ne bokkoon na ci taalibe sëñ Touba yi nga xamante ne. doxal nañu yoonu sëñ Touba bi vraiment mu ibbi fi ay daara jàngal fi ay ndongo dagg fi ay tool ba kenn ku ci nekk di ci bay sa kon bu fi jógee tey macha allah lii di fukki atam ak ñettam ci génnuk àddinaam ah danu koy ñaanal rek yàlla na yàlla yërëm ko te jéggal ko te boole ko malaaka yërmande te àjjana di këram tëraay di noflaayam loolu man vraiment loolu laa koy ñaanal ah di ñaanit ki fi toog nga xamante ne mooy xalifa bi ko fi wuutu di sët ci ñoom ah yàlla dooleel ko oyofal ko yan bi ba lépp lu mu bëgg ci yoonu maamam bi yàlla defal ko ko muy jàmm. waaw ah, gisoon tamit sëñ Saliou Mbacké ko xam-xam ne dafa bëggoon tuut tànk yi ñu laaj waaw mooy li ma la wax léegi rek xam nga dama jiital ci wax ci ne la ibbi na ay daara te ko ibbi daara tuut tànk yee tax te tuut tànk yooyu ku leen defar rek defar nga àddina. ndax tut tànk yooyu ñooy doon ëllëg mag kon yooyu tout tànk ku leen dugal ci daara di leen jàngal dugal xam-xam ci seen bopp ah macha allah loolu mooy àddina waaw. ñu gis ah, année ñuy woote toolu Xelcom ñu gis ndaw yëpp di jaayo di dem foofu noonu loolu lan boo ko yëgee lay def ci. waaw loolu dama ciy kontaan ndax li ma ciy kontaan sëñ Tuubaa doon wax naan sama yoon wi kull ku ci def sa dërëm mbaa nga def ci sa doole ak yokkute rek la ci kaw ci kanam. kon moom su ko defee macha allah li ma la wax rek kon mel ni ne teggiwul yoonu maamam yoonu baayam kon loolu roy na ci pàppaam ba nga xamante ne muy kilifaam di sëriñam vraiment loolu li baayam da wax naan defalal leen matu tànk yi moom ci loolu la ñëw jaar macha allah.